la mbokk yi gannaaw ba ñu leen nuyoo amaat mbégte ak contentement ndak ak ji ci tënkum xibaar yi. daal di koy doore ak mbirum activiste bi di Bah Diakhaté mi nga xam ne rek ni ki démb yoon daal na koy teg loxo gannaaw kàddu ya mu yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko ñu jàpp ne ay kàddu la yu tegginewul waral kii di euh, procureur de la République daal di auto-saisir daal di koy euh, teg loxo ni ki euh, démb ci ngoon lañ ko daal di amal fële ci pikin Technopole la ñu amale boobu la arrestation jëmale ko ci kii di Bah Diakhaté wax ci beneenub arrestation euh, jëmale ci kii di maam Cheikh Tidiane Ndaw mi nga xam ne rek yoon daal dina koy teg loxo moom itam euh, boobu la information nag yenn ci ay journaliste daal nañu koy euh, dëggal bokk na ci Ngoné Saliou Diop mi nga xamante ne rek daal dinay xamle ne boobu la arrestation ñu ngi ko amal niki tay ci suba ñii di division des investigation criminelles ñoo ko daal di teg loxo. beneen mbir ñeel politique euh, mooy rek la nga xam ne rek moo xew ni ki démb gannaaw arrestation bu ba jaxate yenn ci ay partisans euh, wu Benno Bokk Yaakaar ay militants. ak ay jegeñaale kii di Bah ñu demoon rek ngir daal di euh, gunge seen jegeñaale boobe euh, ci lu ni mel nag ñu jàpp ne ñii di waa police dañu leen euh, daal di gazé waral ñu koy ñaawlu bu baax a baax bokk na ci Abdoul Mbow di président bu groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ancien porte-parole du gouvernement di Seydou Gueye ak ancien ministre Pape Malick nduur ba ci ancien député ah, Moustapha Diakhaté Fouta Tampi ñoom ñi ñëpp daal ñaalu nañ bu baax a baax lu ni mel. wax ci tàggat yaram jëmale ca mondial 2026 ak publication liste Aliou Cissé mi tàggat gayndey Sénégal yi war a jàkkaarloo ak euh, ñii di taskatu xibaar yi ni ki aljuma ngir fësal ana ñan yan joueur la fas yéene convoqué ci match yi nga xamante ne nii rek ñu ngi koy waajal euh, mu euh, mu jëmale ko ci juróom benn fan ci weeru juin ñu war ca jàkkaarloo ak république démocratique bu kongo juróom ñaari juróom-ñeenti fan ci weeru juin itam ñu war a jàkkaarloo ak équipe bu sot bi muy ñaari match rek yoo xam ne ma nga ñeel li di éliminatoire coupe du monde 2026 ndar képp xibaar yi ak euh, la xew fële euh, ca biti réew wax ci euh, génnu àdduna président iranien bi di Ibrahim Raisi mi nga xam ne rek gannaaw ab accident hélicoptère bu mu amal ni ki weekend bi ñu dal di génn ca la jaare ñàkk bakkanam waral ki di Vladimir Poutine yëkkati ay kàddu di seede jëmale ko ci boobule président waaye itam di xamle ni di feddali kóllëre gi mu sekkoon ak boobule président moom Vladimir Poutine di ko itam rendre hommage ay jege jegeñaaleem mbokk yi lii moo fi uh, ruuse woon ci tënkum xibaar yi cant ak ngërëm ñeel na leen ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf.